du nuyu sama sama télé bopp Medina waaw du nuyu gars yëpp. kon gars yi ñu ngi dem xaar sa diggante ki xanaa mooy mu mujjee xëy neexul ci làmb tey ba réaction nga ciy def. waaw loolu moom loolu moom c'est ci làmb blessure blessure mbër moom euh, mbër mi mu dal sa nekkul moo koy sàkku mais dafa bokk ci. dafa dafa dafa bokk ci sport mbër mbër mbër mbër mbër bi muy arrivé sax ci moom lay gën a métti mais ñun nag ñi nga xam ne ñoo ko sekoon ak moom dañ koy dañ koy bokk ak moom ah parce que mësuñu dal di waaj combat ba mu des ay fan gaañu kon bu dalee suñu adversaire muy suñu rakk dañ koy partagé ak moom xam nga xam ne tamit bon dana métti ci mais ci moom lay gën a métti parce que moom toog na lu yàgg bëriwul ah, adversaire am moo blessé woon moo tax sax mu bëre ak man moo tax mu waroon bëre ak man ak tey bu ñu demee tey ba am des ay fan mu blessé damay wax ni rek nii bon mbiru suñu borom la li ci li ciy déploré rek mooy dafa c'est quelque chose de répétitif muy am mi ngi commencé bëgg a bëri te te mën na ragal lool tamit investisseurs yi nga xam ne tey dañuy jël seen ay millions di ko dugal ci làmb mën na leen di mën na leen cenc loo waaw moo tax nag euh, nañ ci gën a góorgóorlu rek. pour muy pour muy pour muy même buy am sax muy sorante wo mais daal en tout cas jël nañ ko avec philosophie bi mu amee mënuñu mënuñu mënuñu bañ a déranger nag parce que lamb planification la am boo amee combat da ngay planifier da ngay planifier say entraînement da ngay budgétiser say say say sa sa sa planning li ngay def da ngay financer da ngay frais léegi nag bu ñu ko report bu ñu ko repoussé xamoo ka ngay bëre tamit beneen beneen beneen beneen beneen euh, yeneen charge booy ñëw sa kaw te nekkul promoteur moo la koy jox nekkul seet da nga koy dem jëli ailleurs loolu moo ci métti waaw ni mu méttee ci bër bi ñun la noonu la méttee ci ñaar ñi. ci kaw loolu daf nga sotti ne yow xaaroo ama mais dafa mel ni tamit ñu ngi tudd sa diggante ak Boy Niang. waaw ah non parce que mënu parce que bu nekkee tamit euh, blessure bi dafa nekk war a nekk nar parce que blessure bu sérieux la kon ba moment discal la am parce que blessure la boo xam ne il faut que euh, il faut que borom faju ba wér avec des des des des des bons kinés kinésithérapeutes yoo xam ne tey dañuy dañuy xarañ ci liggéey bi pour faj ko mu wér parce que la. moo tax nag bu naree gudd nag euh, yoon may na ma mu ubbil sama buntu promoteur yu bëri pour yenn adversaire parce que di xaar euh, di xaar ay trois mois plus dafay métti ci man te yoon may yoon moo ma may loolu moo tax keroog suma suba encadrement génn sama président wax ni xam nañ ni blessure dafa yàgg te nag comme que dafa nar a yàgg nag ubbil na suñu buntu yeneen promoteur pour yeneen adversaire. atu lamb ji ngi coow sa diggante ak Boy Niang loo ci wax. waaw mais dafa nekk quoi parce que tamit léegi grand contre petit dafa xew te combat jànq xam nga combat jànq gars yi dañ koy soxla te làmb ji moo toll foofu ciblé wu ma ko kom adversaire am na yeneen adversaire yu fi nekk xam nga même Modou Lo bi nga xam ne sax Modou Lo euh, Boy Niang et tant d'autres ñu comme que sama combat ak Boy Niang la gars yi gën a réclamé xam nañu combat la boo xam dafa neex amateur yi gars yi nekk ci di wax. mais pourquoi Gris Bordeaux saa parce que li amateur ne bëgg man li nga xam ne maa ngi koy amee ci lamb mu lew moo tax su ma ñëwee bëgguma amateur jëppi ma moo tax saa yi ma ñëw ci lamb moo xam ma daan la moo xam nga daan ma danaa wane fulla wane fayda wane ngor parce que lamb loolu la bu ci loolu newatul rek nekkatul làmb. jaajëf ziar ñëpp